nee na sëñ Béthio ki tax li tax a tax moo tax lépp tax sëñ Béthio moo tax lépp tax bay tax tax yi nañu ko sant gaañi nañ leen sant sëriñ Béthio ngor gi dama ne dama ne sëñ Béthio sëñ Béthio kenn defalu ko dara sëriñ Saliou ko defal lépp kooku day suñu njariñu àdduna ak àllaaxira kooku day suñu njariñu àdduna kooku day suñu lépp sëñ Béthio ay waay gaañ yi 46 ak 2018 waay gaañ yi du benn fan du ñaari fan 73 ans mu ngi ko ànd ak Serigne Saliou sonnul tayyiwul gëmmantiwul daggantewul fañul mbooloo mi ku ñëw mu ubbil la ku ñëw mu yaatal la ku ñëw mu faj say aajo sëriñ Saaliw ko wax sëñ Béthio mënu ko Mbakke mënu ko jox naa la kun fayakun képp ku amati aajo bu dikkee ci yow bu la ko diisee na nga ko faj na ko de ko deel dogu ndax loo dogu ma fekk la ci dama ne kun nag yàllaa ko moom sëriñ Saaliw li mu may sëñ Béthio bari na may na ko lépp waaye nag sëñ Béthio li sëriñ wax kun fayakun di fajuk aajo jàmm mm. sëriñ Saaliw teg ko ci loxoy sëñ Béthio mm. ne ko bu la diisee ajam na nga ko faj way gaay ñi way gaay ñi nañ leen sant Serigne Béthio tay li mu defal tay li mu defal dama ne ñoo def ba fay ko ñu ko ñoo wax ba fay ko ñu ko nañu xamné nar naar fi indi xorom si ñu sante ko sante gi nak moy ngor gi and ak mom top ko te ne ci limu bëgg te diko liggéeyal wax jaangi nonu, mang koy sant sama cantuk bop tiant gi moy mom day da def lepp ci luñu xam ak lu ñu xamtikoon te mu jom ñu lol te mu jom ñu lol soxna da jallo tun gi damay bëgg ñuma koy wax ndax jaay bi na ba ni moy sama borom té la jaay sant bi waye soxna da jallu ji damay bëgg ñu xam ni dama juddoo ci diggante pël ak séeréer mu fekk ma fa ma fekk jële ma fa ma jële indi ma fi ma indi yóbbu ma fa ma yóbbu mu jomb ma lool ma fas yéene doon as fas yéene koo jaamu fas yéene koo liggéeyal waaye fas yéene ko sant faw faw barki sëriñ Saaliw maa koy sant bu wér universel soxna Batoor ma nga ca sëriñ bi di jàmbaar lool barki sëriñ Béthio di jàmbaar lool ma nga fa di liggéeyal sëriñ bi waaye teewul mu ngi fi di liggéeyal sëriñ bi ndax mu ngi ànd ak mbooloo mi Touba ka sëriñ Touba mu ngi liggéeyal sëriñ bi ñoo àndee 17 avril bi ci jëf ci kaddu gu rafet ci organisation universel soxna Dia wu Thioune di xel kom momit sering bejo. ngi sante Serigne Béthio ande nañu liggey bi ci jëf ci kaddu yu rafet ci organiser mbolo mi mang koy seereel aduna waw ndax ki mat séré moy Serigne Béthio té mom xamna lepp waye ma ngay bëgg ñëpp dégg ko bu rafet lañu and di diisoo di waxtan di déggo and ak mbolo mi mi ñu Serigne Béthio denk ñu nangul ñu lol ñu ànd di liggéeyal sëriñ Béthio universel sëñ Xaadim Cuun moom it ànd nañu liggéey bi ci jëf ci organisation ndax moom it sëriñ bi da koo dénk mbooloo ànd nañ ko ci jëf ci organisation ci wax ju rafet ànd nañu di liggéeyal sëriñ Béthio maa ngi sant bu baax sëriñ Béthio sëñ Sall Gueule Tapée mooy taawu sëriñ bi ñoo ngi sant ki sa tax sa teewaay yak sa rek yi nga ko andel waaw ñu ngi sant bu baax ndax li rek ñu war joge fofu a foofu ah ni yi ko ni ma ngi naan jërëjëfati Serigne Béthio ci mbooleem ko ni ndax kat luñ def ben ñoo ngi koy def téeméer te kanam la jëm te yéen lañ ko àndeel barki sëriñ Béthio muy Touba Kër Sëriñ Touba muy Xelkom muy waa Kër Sëriñ Xaadim Cuun waaw barki sëriñ Béthio ñoo àndee liggéeyu sëriñ Béthio bii di xàcceendoo di dóorandoo moo tax 17 avril ren bii gaañi day 17 avril bu bës sa xew day 17 avril bu mës sa xew te ku dikk di nga xam ne mu demee ndax fii may waxee yéen kat nag yi moo jotagul ma ñëw gëléem yi jënd nañ ko mu ngi dikk xar yi noonu ginaar yi noonu waaye condiment yi tàmbali naa wàcc te fruits yi ak yaa ngi dikk ak ndox mi te it matt mi yegsi na waaw lépp ngi dikk ci tawféexu Serigne Béthio kon ñu maa ngi santaat bu baax mbokku taalibe ci ànd gi ñu àndee liggéey Serigne Béthio bi waaye yéen a di jàmbaar barki Serigne Béthio yéen a di as gor yéen di ay taalibe ndax nag yombul de waaye santaat nañu Serigne Béthio ci boole gi mu ñu boole mbooleem cantaakoon yi biir réew mi ak bitim réew kenn desul ku ci nekk yaa ngi def loo mën ak loo mënul ngir jublu ki Sëñ Béthio bëgg kon yalla na fi yag te gën a wér waaye maa ngi sant bu baax presse bi mbollem organe de presse yi fi tew sen taxaway rafet na ndax kat wax deug yalla te diggu ndolor ba legi ngi taxaw sen taxaway bi ngir jallale cantuk Serigne Saliou Mbacke gi nga xamni Serigne Béthio moo koy santé ñoo ngi di ñaan sen barab yi yokku te yeen ña fa nekk yéen ngeen yokku waaw ci sayet ak ci baatin ñoo ngi ñaan cant gi ñu bokk ko yéen ndol tu cant yi ñoo ngi ñaan serigne ba mu yagg fi te wér ndax mom bu fi yagge te wér lepp gëna a lepp kat neexna na di gëna neex te lu mu gëna neex gëna baax ci ñun kon ñoo ngi santat baax universel bokum waaw goor liggey bi rafetna jambar ga barki serigne Béthio boobaak léegi yaa yangi ci ndax man kat wowuma ken ñom ñu ngi ni jëluma sama téléphone wo ci ken yow mi la sëriñ komunikasi jox walum communication bi yow la ci waxal ba nga ma man la man sama yoon nekku ci sëñ Béthio yow lu mësa jital ci communication bi kon doxalal Ya, coordonné ba lepp dajé fi kon waw gor waw kon mbokk taalibe yi ma ngi sant ñëpp bayiwuma kenn di ñaanal suñu sang bi mu yàgg fi loolu te gën a wér euh, sëñ Sargal Tapé kàddu yi rafet na waaw sëñ sëñ sëñ sëñ euh, sëñ Xaadim Cuun honorable kàddu rafet na jërëjëf waaw mbokk taalibe yi universel Ousmane Sène rafet na waaw jëwriñ universel Ibrahima Diagne way yi neex nañu waaw jëwriñ Omar Sow sant nañu sëriñ Béthio mbokku talibé yi waw ah jëwriñ universel mam Cheikh Sikar waw jàmbaaru Serigne Béthio gi waw Sikar si neexna na yëngal nga ñu ñun waw waaw jërëjëfati Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yalla na fi yag te gëna wër wér ngeen jëf serigne dam ñoo ngi bëgg lool sa taxaway waw ni nga fi li ñu wax ji ndax kat daan nañu ko wax mu neex ñu lool waaye nii nga fi toogee waxee ko nii nga ñu ko dafa am feneen fu ñu fam ñu yóbbu mooy dañoo gën xamaat ne wallaay suñu amul morom Serigne saliu Mbacké lu yëngu lu ne moko ko yëngal moo matale ak Wow, matale waaw waaye sa seere su rafet si nga wax te jëf ju rëy mu la defal wax nga dëgg de jombe na de Serigne Saliou lay Serigne Saliou la kenn xam waaye moom day dëgg-dëgg Serigne Touba dëgg-dëgg Serigne Touba nag bu toogee nga fekk si ko mu defal la tànn gu rëy googee moo defal nga xam ne loolu pajum aajo la adduna ak àllaaxira gën jëm nga xam ne waxuma la yow waaye say doom say sët say sëtër ñi da leen di topp dañoo toog fii sa ju rafet ji nga def jóg ngir seet si Serigne Béthio ba fekkee fii li dala cee boole moo tax na nga xam ne saw nag dina dikk. soobee sëriñ bi waaw saw nag dina dikk saw xàbboon dina dikk ndax nag sëriñ Saliou Mbacké jëfam ci kum war ngaa toog wax ko waaw ndax mooy waxi sëñ Abdoulaat gi waaw waxam jëree ji wax nee na ku ñu defal ku ñu defal ba bët tegu ci war ngaa wax ba nopp yëpp dégg ko mu jëfal la mu jëf jëfam jore jii mu jëf ci yow nga am fit wu toll nii yi nga am ndax mënoon nga ne am na fu ma fu ma fu ma féete di am looy incarné waaye Serigne Saliou woy lépp wax ji nga ko waxaat rek ñun ñu dégg ko jariñu ci àdduna dégg ko jariñu ci defaat na ci yow leneen loo xam ne bokkul woon dolli na la waaw dolli na la barki sëriñ Béthio ñoo ngi bég lool ñoo ngi sant kaddu yi rafet na lool waaw ndax ñun suñu sang bi rek la am moom rek la am amuñu keneen ku dul moom ñun xam nañ ne mooy suñu raison de vivre ñun xam nañ ne bu ñu amee ci sëriñ Touba lu toll tarfatal ay ni gëm ko ni ñu ko gëmee te moo ko def ci ñun ndax sëriñ Touba day lu kenn xamul kenn xamu ko bi di ko bëgg bëgg mbaa nga di ko gëm moo lay bëggal boppam moo tax nga di ko gëm wala nga di ko bëgg mm-hmm. loolee nag suñu sang bi moom Serigne Béthio moo ñu ko defal mm-hmm. ndax sëriñ Saliou kat mënoon nañ koo bañ a xam ndax sëriñ Touba bi mu wootee màggalam gi ci mbuba mu njëkk ba ne képp koo xam ne sama mbeg sa mbéga nag ma sant la yàlla tàmbale ko ci ginaar ba ci gëléem boobu ñun fekkewuñ ko suñuy bàyyi suñuy ndey sax fekkewuñ ko mm-hmm. waaw kon buñ ko fekkee ci jamonoom jii mu woote daan ne waaye sëñ bi ne sa taalibe nañu fonk màggalug sëriñ Touba gi nañu fonk gàmmu gi nañu fonk xasaay di sëriñ Béthio day sëriñ Saliou mën nañ ko teg 17 avril bii ndax mooy daje bi bu du woon moom lii mooy ndeyu bés ndax bu du woon bés bii 17 avril ñun duñu dooni nit bay dooni jullit bay dooni murit bay dooni cantaakoon bay jot digalu sëriñ Touba moom sëriñ Saliou ci jëf leen màggal gi ndax fekkee wuñu ca kaalaam gu njëkk ga kon loolu buñ ko amee moom sëñ Béthio jaamu sëriñ Saliou moo ñu ko may ndax fa sëriñ Saliou kenn jotewu fa guddul moom ndax ba àll bi ne tat kenn xamul ne mooma sëriñ Béthio ne mooma ba mu lëndëmee ba kenn xamul ne sëriñ Saliou mooy dëgg-dëgg sëriñ Touba sëriñ Béthio moo ko leeral moo ne sëriñ Saliou wooy sëriñ Touba kon loolu buñ ko amee dund ko bëgg ko gëm ko ba yemalewuñ ko dara loolu sëñ Béthio ñu ko may moo tax boo ñëwee jël sa tànk yu rafet yii nga dox ñëw ba ci biir këram gi dala cee kon sëriñ Saliou waaye waaye sëriñ Saliou defam waaye defam waaye sëriñ Saliou defam waaye defam moo tax sant nañ bu baax mbokk taalibe yi guddi na te bari na te bis bi yegsi na te faw nuñ ci nuñ ci doxoon rek da aj baar bi fi mu toll nii waxatuma sax aj baar waaye réeral baar bi waaw ndax baar bi ko ajee mën nga jéem a ñokkal yi di ko jéem a jot waaye dañ koy réeral ba da ngay yéeg waaw waaw kon nañ ci daal di nekkaat waaw na saf sap sëñ Béthio ngi dik daa war a neex daa war a neex bay kelkel yi daa war a yëngu waaw daa war a neex ba sumburumbaan kon yàlla na fi yàgg te gën a wér.